tawu coono ah ti li leen ndokkeel ci weer bi ngeen baal ma kàddu gi gudd na ba pare waaye dafa fekk ni mbir yaa ko laaj àdduna bi dafa am fu mu dafa am fu mu jëm xëy na sax boobu ba léegi maa ngi koy wax ci ñi nga xam ni xëy na dinañ faral di waxtaan àdduna gi ñëpp a xam importance bi élection yi am ba mu des sénégalais yi ko war a voté li tax ma wax ko xam naa ko ndax ñi jël seeni soldat dugal Cap Vert ñi jël seeni soldaa dugal Côte d'Ivoire ndax di waajal fii lu fi nar a xew yëg nañu ko kon nag ku xeeb sa mbir am na ko ko xeebul li wolof di wax alal lu ko sàggan ku farloo koy jëriñoo ah waaye de damay yaakaar ni dafa am farata goo xam ni ku bëgg sa bopp bëgg sa réew danga ko adopté li ma dégg benn waay wax ko mu ne réew sàngam de coow ji bëri na waaye li leen ñëpp nawe li ñu rawee ñëpp mooy ci réew ma góor a nga fa jigéen a nga fa xale nga fa jullit a nga fa chrétien nga fa leneen ak leneen a nga fa waaye gis nga bu dëkk bi soxlaa ñu ne ñoom loolu yëpp dàqu na ci réew mi la ñuy bokk kon réew mi la ñuy xeexal façon boobu ku ko adopté sa réew sa réew baax moo tax bu ñuy wax politik li yara bàyyi xel dafa bëri ndax malheureusement Sénégal dañu xaw a ñeme àq te àq ay daaneel réew àq dafay daaneel réew ñaata at 64 ans jóge A jëm B ñëpp ngi jëm kanam di dem